Euh, lu rëy li nga xam ne def nga ko te dinaa ci siwaat ndax ba ñu tàmbaleeg léegi euh, suñu borom am fu mu lay suturaale léegi mu yàgg daanaa naan nag moytul vaar ndax dañ ko fay gis ba son dañ fee tàmbali woon ma lay laaj ci combat fi daan dox ci diggante mbër mbër yu bëri ma laaj la ci nga wax mu demee noonu diw mooy daan mu doonoon lu rëytu naqaree wax nit ñi dégg ko. na leer rek làmb ji waaw. mooy daan Boy Niang. Hmm. Cheikh fils de wax. waaw. combat bi gisuma ci jël. ñu jóge foofu ci match yi noonu la fa demee woon ndax euh, gis nga ko dama la doon laaj ci match bi ak bii Sénégal li muy mujjee nga wax ko te noonu lañ koy gisee loolu lépp suñu borom di lay suturaal. match bi Sénégal mooy am ndam ci Cameroun. dégguma. match bii. waaw Sénégal mooy am ndam ci kaw Cameroun. man maa la wax lii. Côte mooy qualifié mooy am ndam ci Sénégal. allah waaye li ci gëna a yéem te gën cee yéem barki Demba Ndiaye damaa ñëw dalal la di lay laaj ndax boobu itam. saa bu nekk nit ñaa ngi yaakaar kañ la président Ousmane Sonko war a génn Bassirou kañ la war a génn ma laaj la ci li ma gën a yéem nag nga ne ma jour jeudi ci la Bassirou di génn jour jeudi ci la Sonko di génn ma ne baa yaa ngi sóoraale vaar nga ne ma xam naa nag nama nga ma dugg vaar mais suñu borom dogala ko doon lu rëy nag jaaxal nit ñi. waaw ah. président Ousmane Sonko suuru sodi lay génn pression. dégguma li nga wax de sëñ Modou Ndiaye. président Ousmane Sonko. waaw suuru sodi lay génn pression incha allah. président Diomaye. waaw suuru sodi laa gis moom lay génn. jour. sodi ah. yëpp mu indi tey bëggoon na xam kan moo lay dee ay jinni la wala dangaa mag bu lay dee wala lan la wala seetu xamle bi rek mooy jaar fii waaw seex xam nga xawma kenn xamut ah. nit du ko def ah. xawma kenn xamut mhm. nit du ko def man ngaa xam lii sa morom xam loo xamut mhm. ndax xam-xam moo ne toll dafa yaatu te suñ borom nag faxaalu li maa yor coobaram mhm. dong lay jëf mooy xool lu ko neex mu doxal ko ci jàmm waaye seex man yàlla dogal man. waaw ba jàng jotee ma jàngi. Hmm. demut ci loolu am la suñu borom def ci man lu bari loo xam ne ñi ma xam. Hmm. wala ñi ma bokkal deret. waaw xam nañ ne man am na lu xew ci man loo xam ne. Hmm. du lu ñuy leeral du lu ñuy leeral ci émission daa maye de. waaw du lu ce que ca ba may gën a doon tuut tànk. waaw ci bari sax ñoom man dañ ma koy nettali. waaye nag loola tamit teewut li may nekk ne ci sama deret. samay fànn ñaar yëpp. waaye doxewuma ci ne sama diw da ko doon def sama maam lañ ko def déedéet dama cee boole bëgg ko mu ne ci sama deret ah. mu jaral ma sol sama dàll di ci xam lu ne ah. dem ci fu ne ba ma ci toll daj ci lu ne dégg ci lu ne ah. ba suñu borom dogal ci sama jëmm tey lii mu dogal ci man waaw moo tax wàllu seet ñaan yàlla mm-hmm. sëñ Modou Ndiaye mi da cee tollatut fu muy làmbatu waaye dara raxu ci yëfu jinne raxu ci yëfu man damaa man moom man moom ay jinneeg damaa yore jinneeg yooyu yëpp yàlla dogal na doxuma ci damaa jàng xam-xam ba xam ko loo ma wax damay toog teg sama xam gëstu ci la ma ci bëgg gëstu xam ca la ma ci bëgg a xam mhm. leeral ko saa borom dogale ko noona waaye man yoruma ay jinne yoruma ay ñuy ñëw di ma déey lépp ci seet gu leer laa koy teg ah, ah, waaw te oh. seet nag moom mhm. wax naa la fii keroog ne li ma ci yor mat na fukk ah. te bu ma ci utiliser nga ne ki xanaa du nit waaw keroog dama gën a jaaxale ndax keroog keroog génn nga ci beneen seet mooy bi may la laaj ci Bassirou Diomaye Faye keroog daa mel ci kurus nga génn sax seex seex mm. maa ngi benn secret boo xam ne xam nga seetu ramlu bi am na waaye seetu aajo am na damay sama këyit yii daa taxaw ah, wala damay bëgg ubbi entreprise wala damay jàpp aw yoon wala nangam sangam am na fu ma cee jaar foo xam ne mhm. boo ko waree def danaan la def dana gën ceew boo bu gënul ceew dana la bul dugg maa ngi ceeg gu doy war ah. barke alxuraan ñaan yàlla mën na lu ne jàng boo ko defee da nga xam waaye jàngoo ki jàngi xam nga bëgg a contesté ki jàngale ma xam loolu lu tegul fenn man nag sama seet ku koy werantee waaw naan lii mën naa mag mënta am wala lii daa gaaw yow boo ñëwee sa jëmm yow sëriñ ba koy commentaire boo ñëwee man ma wan la loo xam ne yow xamoo ko ci sa jëmm kenn du ko di seet del sëriñ seetu ram la bi saa borom moo dogal ba ma dalee gis ñi naan ramlo la ñuy seete ba fi ma toll suñu jon yàlla tey jii mhm. sama seet man ah, gisuma ku ma ci toll fii nag seetu ram loolu mu la jox faye ko bor da ci loo xam ne nag li tax ma ci insisté sax heure boo ma dalalee mhm. ma leeral ci ñi may woo di ma seetloo waaw ñoom xam nañ ci dara képp ku ma seetal nga nga déglu sama wax ji da nga xam man li ma wax dëgg la wala du dëgg mhm. xam nga lu dëgg moom du yàgg du yàgg de waaw mën naa yàgg waaye du sax waaw waaw olof dafa wax loolu waaye mën naa yàgg waaye mhm. te mi ngi bëgg a yàgg nag ñi ñi confirmé mooy ñi may seetal da nga seetal nit ba pare mu yenu ay loxoom ba nit boole la am nga seetal ko pare day jàpp ne da waxtaan ak nit mhm. léegi loolu nag bu dootoon dëgg ñoom danañ génn man musuma cee seetal nit mu ne ma gisoo ma en tout cas keroog de tiit naa bi lépp lu mën a jox bis baa ma jox la ci suur baa ma wax la ci nàngam bul sori boo ànd ak dogal suñu borom foofu mhm. lay jaar ndax man nag teguma lépp ci sama nafsu de baa xel mu neex damaa jàng ci xam-xam bu wér te suñu borom ci boppam waaw moom ci boppam rëbb ba ngoon mhm. te ñaanu ko ma la tarkal waaw man nag bis bu set maa ngi déyaale ak moom ngir fas lu ma xam tey bu ma xëyee damay fas yéene beneen paa romb hmm. moo tax xam-xam asraar bi moom lu ma ci jeex hmm. dama ko gisatut loolu mooy li ci am seet moom li yàlla dogal ku sa hmm. mbir jaaxal waaw nga am loo bëgg a dugg boo ma boo bu ñu déggoo ci kàttanu yàlla danaa wax loo xam boo fa sa situation day décanté wu allah